man maa ngi tudd Adama Diouf euh, nekk présidente GIA Salam nekk membre aussi ci biir RIEP. sant yàlla di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa di wax ne tey dañ fee amoon foire muy premier édition ñu sant ci yàlla bu baax nag sant ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant nag Abdou Mbar wax dëgg yàlla li may wax rek toujours nit ki da ngay am volonté volonté mooy tax nga am li nga bëgg. am na volonté te ñun ñi ko seqal itam ñu nekk si biir yëpp am nañ volonté. vraiment di sant aussi suñu partenaire bi nga xam ne daf fee ñëw tey di madame Fall mm, euh, Abdou yëkkati ko mu jóg ba ñëw fi tayalu si dara ak gàmmu gi ni mu xate vraiment mu jóge këram bàyyi yitteem yëpp ñoo taxawuñu waaw kon vraiment ci màggal gi kon vraiment tey dañuy sant yàlla lu baax daal di sant aussi nag gorom biñ fi fekk mu dalal ñu dalal bu rafet suñ dara manqué wul suñ dara paralysé wu fii vraiment di wax ne Abdou daal dama koy wax toujours ne na xelam dal. léegi dañ ne bay dundee te loolu mooy njëriñ te moo doonoon njëriñ depuis ba àddina sosoo te mooy nekk njëriñ ba àddina di jeex itam parce que day ñu ngi fi defar ay sànqal defar fi ay araw defar fi caakiri defar fi ay ñeleng defar fi ay mbaxalu saalum defar fi ay ngurbaan defar fi ay épices lépp loo xam ne doomu aadama daf koy jëriñoo defar nañ ko fi te boo ko lekkee nga am ci wér gu yaram tey dañ ne jigéen ñi nañ bay dundee. bàyyi consommé yi ngay xam ne tey ñu ngi jóge feneen di am ay tooke kon ñun nañ def consommé local tàmmal ko suñuy doom nag man li may njëkk wax lépp looy def yow da nga koy njëkk a tàmmal sa doom njëkk koo commencé ci sa bopp kon nañ fexe ñun li ñuy liggéey ñu di ko lekk di ko jox si njaboot ba bu ëllëgee ñoom tam ñu bëgg ko fépp fuñ ko yóbbu ñooñu itam mun koo lekk ndaxte béy itam ci say wéyu tànk waaw partenaire boobu dañ koy sant di ko gërëm di ko wan ne tey suñu doole moom la nañu jàppale soxla nañu Fra mu jàppale nañu soxla nañ formation mu jàppale ñu ci soxla nañ aussi vraiment suñu produit mën di génn parce que produit yi nga defar ko ba parti génnul itam day métti te xam nañ ne partenaire bu ñu jàppalee ci loolu jàppale ci financement nga xam ne tey dinañ am matière première nga xam ne moo gàllankoor liggéey bi yëpp tey loolu buñ ko amee yaakaar naa suñu liggéey dina jëm kanam te Sénégal dina jëm kanam. man maa ngi tudd Koumba Fall soxna Koumba Fall euh, di diriger ONG Femme Africa Solidarité euh, ONG bu am programme euh, buy jàppale jigéen ñi IWA ñu tuddee ko autonomisation. Euh, jigéen ñi dans l' agriculture alors am mbégte lool euh, tey ñëw vraiment ci invitation bi na ma réseau RIEP euh, jox ma am ci kontante lool ñëw fekk si jigéen yu jàmbaare ñëw pour la première foire internationale Grand Magal sous le thème valorisons nos produits locaux pour une meilleure alimentation et également pour un meilleur développement Euh, économique et sociale de notre pays donc man partenaire la euh, mais vraiment partenaire boo xam ni dañ ko jox espace espace bi espace bi mooy euh, accompagner leen parce que IWA programme IWA bi ñu am mooy lii mooy jigéen fu mu yëngoo rek ak nu mu taxawee ci agriculture rek nga accompagner ko nga xam li mu soxla ah, nga am li mu soxla muy ndaw muy jigéen nga jàppale ko ci pour que mu mën a développer li muy def ñoo wax nañ ko sànq sax ñi ngi commencé wax li ñu li ñu soxla soxla nañu formation soxla nañu accompagnement technique soxla nañu matériel soxla nañu aussi marché parce que boo defee lii ba pare li ngay gën a soxla mooy fan la sa produit di écoulé loolu lépp IWA daf ko intégré tuddee écosystème IWA mooy indi les douze facteurs yi nga xam ni moo moom la ñu considéré que ni mooy facteur yi nga xam ne buñ ko yokkee ci seen man-man ak seen pas-pas dina leen ah, gën leen amal amal doole objectif yi ñu bëgg a aussi ñu atteindre ko li ma kontaan aussi mooy gis naa fi ay ndaw gis naa fi ay ndaw yu góor aussi te loolu aussi dafa baax ci dynamique autonomisation des femmes parce que femmes yi soxla nañu seeni doom soxla nañu seen i càmmiñ soxla nañu seen i seen i mbokk groupe bi daal vraiment ñëpp ñëpp ñëpp a ngi ci dynamique groupe bu baax la parce que loo xam ne da nga koy jógal pour éliminer la pauvreté euh, waroo bàyyi dara ginnaaw lépp ngay dugal rek pour que mu mu jëm kanam ONG bi dafa am kontante lool gis euh, groupe bu dynamique comme RIEP ak ki ko jiite euh, président Sylla ma remercier ko parce que dafa am vision vision mi ngi diaspora mais vraiment yéene bi ñu ma am ci jigéenu Sénégal ak ndawu Sénégal ngàcce nga laama yàlla na ko ci yàlla taxawu ñu multiplier partenaires yi ba lépp lu ci séntu rek euh, yàlla defal ko ci màggal gi nag moom lu tax sax ñu ñëw ci màggal gi dama bëgg rek ñu jàpp ñu jàpp concept bi parce que màggal gi day espace su communion mais day espace su aussi partage day espace su consi euh, solidarité mais day espace boo xam ne aussi mën nañu wax ak jigéen ñi ak ndaw yi ngën leen sensibiliser ci consommer local parce que local boo koy def da ngay jege da ngay da ngay da ngay yóbbu déjà si dëkk feneen dëkk yi am développement yëpp yëpp yëpp en Afrique waxuma sax Europe mais Afrique gii rek c'est que dañuy jiital développement mais développement mooy consommer li nga xam ni yow yaa koy bay muy ci boo nekkee ndaw maa ngi gis léegi benn mélange pour pour pour nourrisson xam nga nourrisson du meew rek koy koy faj mais jigéen ñi sax xam gis nañu xam nañu man nañu. li nga xam ni buñ ko mélangé jox ko jox ko les mamans dinañ mën a nourrir seen doom ba seen doom euh, màgg grandir ba mel ko mee meew yi ñuy jënd ci commerce nga xam ni dafay cher donc man concept boobu laa bëgg jigéen ñi xam ko li ñu am ci suñu écosystème li ñu am ci suñu suñu suñu suñu suñu flore li ñu am ci suñu suñu suñu suñu euh, suñu suñu tool yi buñ ko liggéeyee tuuti rek dina mën a jëm fu sore sore sore. incha allah incha allah bi nu ma woowee man hésité wu ma pour ñëw parce que dama gis déjà réseau bu am doole que ça soit ici que ça soit dans la diaspora am aussi vision long terme parce que soo amee vision euh, consommer local rek am nga vision bu baax ci développement donc ñaan naa yàlla incha allah ñu gën a dooleel foire bi tey moom foire bu bu bu mooy bi njëkk. Euh, ñi ngi préparé déjà foire trois incha allah bu ñu tollee et du ñu yem rek ci màggal gi bëgg nañu événement bépp buy am Sénégal nga xam ni mën nañ faa dem ak suñuy kàddu ak suñuy panel ah parce que concept yi mooy organiser ay panel def ay conférence pour gën a développer thème bi waxtaan ceek experts yi indi ay experts ñu wax indi secteur privé ñu exposer seen i produits euh, ba pare nag di dem nag di visiter aussi les familles ah mais ren moom vraiment c'est le début ñaan nañu yàlla incha allah déwén yooyu yëpp man cee xaj incha allah.